j'adore. J'adore, indeetina vermicelle ak macaroni ajëm ah, merci merci d'avoir choisi la meilleure chaîne di net Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders rédaction bi di am mbégte kontante saa su ne ci di fego ak yéen ci ay jotaayu xam-xam jotaay yu ngeen di wéttalikoo ci seen dundin ak seen nekkin fas yéene waxtaanee réew mi ak tolluwaayam di li sabab benn ndaw bu ñu dootul présenté ci ak taxawaayam bu rafet bu mu am ci réew mi Abdou Karim Gueye di xeex ngir euh, lépp loo xam ne rek njëriñ la lu askan wi war a jëfandikoo ci seen dundin ak seen nekkin moom la rédaction bi di feggoog euh, jotaay tey Abdou Karim c'est un plaisir quand même gërëm nañu vraiment rafetlu disponibilité bi ak sa teewaay sur la chaîne des leaders Senbuzz TV. waaw maa maa lay maa lay nuyu mon frère di la ziar bu baax a baax euh, di rafetlu invitation bi. merci di nuyu sama mbokk internet yëpp di leen ziar. Euh, di ñaan yàlla rek bañ foox lu ñuy xebee wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf en tout cas mbégte la quand rédaction bi dalal la ñuy profito également di ko gërëm di ko ñaanal yàlla Abdoul Aziz Ali ak Baye Ndiaye bi nga xam ne moo koy euh, accompagné ci doxalinam euh, xam ngeen ni huile gannaaw gi am na njaboot goo xam ne juddu na muy li nga xam ne mooy macaroni ak vermicelle Jador képp koo xam ne rek xew-xew boo am ci sa dundin ak sa nekkin rek del jëfandikoo li nga xam ne mooy Jador ndax bànneex rek la Abdoul Karim mbégte la quand même dañuy fas yéene rek commencé waxtaan wi ak li nga xam ne mooy actualité respecté euh, li ci gën a récent bokk na ci euh, remaniement bi nga xamee ni njiitum réew mi président Macky def na ko ak coppite am mais également am surprise boo euh, xamee ni xëy bi nga xamee ni jamono ji moom la son excellence président Macky di mane ak bi nga xamee na ko ak Oumar Sarr également ban analyse ngay am ci taxawaay bi nga xamee ni jëmale na ko waaw mais xam nga loolu man damay wax ni man au fait surprise bi ñuy wax man gisuma ko quoi sérieusement euh, te ñi nga xam ne yàgg nañu suivre aussi xam nañ ñun lii bettuñu parce que euh, Idrissa Seck bu dem rejoindre Macky Sall c'est-à-dire ñoom ñëpp ñoom ñëpp c'est c'est les quoi ñoom ñëpp système bi lañ ñoom ñoo bokk seen seen i politique ñoo bokk seen i système bokk nañ yàgg doxalee ñoo bokkoon géew ñoo bokk kër bokk bàyyi bokk ndey ak bàyyi dañoo xuloo woon rek ku nekk gàddu sa mat laa dem mais xam yàgg dañu dañuy dajawaat seen kër donc donc pour man loolu du du du du au na man li may mooy ñi muy mooy sénégalais yi nga xam ni le fait Idrissa Seck ci pouvoir bi wala mu dellu joindre Macky Sall bett na leen man loolu moom mooy bett man mais ñun yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko expliquer ne leen que ñii nii au ñoom ñëpp ñoo bokk yam ñoom ñëpp système bi la ñoom ñoo bokk même système. ñu bokk ni ñuy doxalee ay hommes ñëpp àllu askan wi ñuy dundee euh, ay naxaatakat lañ kii dañ koy jiñ sàcc suba mu rawale tant de milliards daw beru créé parti am après ñëwaat c'est que loolu moo xew ci seen biir ñoom quoi donc je pense que loolu amul benn benn surprise boo xam ne man man man man am naa ko si quoi man bett ma et puis du ñoom laa am yaakaar quoi Idrissa Seck mënuma bett parce que lii yàgg na ko def. Mm-hmm. defoon na ko 2007. Mm-hmm. defaat ko te buñ ko bu amaatoon beneen chance aussi da koy da koy defaat. parce que loolu mu nekk ci moom te li tax muy def politique xam nañ ko ñoom ñëpp seen intérêt crypto personnel moo tax ñu def politique mm-hmm. donc mënuñu ñàkk a def lu mel nii. Mm-hmm. est rek dafay représenter crise de confiance bi nga xamee ni aussi euh, askan wi yàgg nañ ko am ci euh, homme de politique yi fi nekk maanaam ñun ñi nga xamee ni xëy na ñoom la ñuy xaar pour ñu saafara seen askan lu jëm ci seen dundin de manière générale est-ce que du crise boobu rek mooy répété wu toujours. Euh, waaw mais c'est que loolu loolu moom lañ définir politique Sénégal mais mooy Machiavel bi quoi mooy politique bi ñuy wax naan mooy politique bi nga xam mooy politique politicienne bi ci loolu mm-hmm. gis ni euh, boo xoolee ku mel ni ku mel ni Senghor jóge ci Abdou Diouf di ñëw di ñëw ba tey ba suñu yàlla tey donc on a on a toujours eu des problèmes avec ak respecter seen honneur ak respecter juste ne serait-ce que sax li nga xamante ni moom mooy. Mm-hmm. mooy kaddu askan yi nga xam moom lañ leen jéem a jox si kaddu yi maanaam voix yi leen askan yi di jox. defuñ ko donc donc je pense que lii répétition la rek quoi parce que aussi da ngay xool même ñi politiciens yi fi dee sax defoon nañ ko xam Sénégal ku dee baax. xam nga c'est-à-dire yooyu xew c'est ay répétition la quoi dañoo xool même Abdou Diouf c'était la même chose ak ñi nga xam ñoo jigoon ci moom après élection jot ñu dem ci moom xam nga euh, c'est-à-dire ay Omar Sarr yi c'est loolu bu man du débat quoi vraiment. c'est vrai que du débat lu répété wu la képp koo hmm. xam ne yaa ngi gëstu euh, politique réew mi ak dox vraiment da ngay gis ni vraiment du débat mais le problème qui se pose mooy lan moo tax muy répété wu pour toujours da nga mënul am leader politique boo xam ne xëy na askan wi mën nañ am ci yaakaar wala exactement am na lu manqué aussi certainement ci homme politique yi d'abord nit sax balaa ngay def politique balaa ngay def lépp lu mën a doon d'abord da ngay nekk nit quoi d'abord nga nekk nit ku gëm yàlla nit ku am ay ay ay yu nekk si yow nga nekk nit ku seet loxo aussi tamit parce que ñun li tax ñun en tant que ñu wàcc ci mbedd bi di tànn ay candidats di campagne ko wax mooy xam ñu Sénégalais yi mën nañu fol li mais mënuñu fal donc moo tax bi ñu xoolee ba gëstu ne jot na nag ñu tànn ko set ay loxo moo taxoon tey nga gis ñu ne fi daan ay noo Ousmane Sonko nekk na koo xam ne dafa set loxo bokkul ci système bi nekk na xale bokkul ci benn lobby nekk na nit ku am diine xam nga ñuy ñafe pour wan leen différence bi nekk ci Ousmane Sonko ñi nga xamante ni ñoo nekk ci pouvoir bi. donc loolu ñoo nekk ci politique bi depuis système bi depuis yàgg na loolu moo tax mu demee nii mais sinon ñun Sénégal bu fekkoon ni tey amaana am na foo xam toll nañ fa ci côté politique ak ci côté incompréhension kon duñ toll fii duñ tardé nii duñ delloo nii ginnaaw du njaloon ñu ginnaaw. Euh, ndax kàddu yi nga xamee ni moom Idrissa Seck yëkkati na ko ba muy janoog taskatu xibaar yi xam le ni réew mi moo soxla taxawaayam ak mu indi touche am ci jàppale président Macky Sall di li sabab mu dem lëngoo ak moom pour liggéeyal réew mi ak tolof yi nga xamee ni xëy na gis na ni moom réew mi ngi koy dund mooy li sabab mu dem rallié wu pour ànd ak moom ndax. da ngay dëggal mu bonee nga xam ni baaxul ci Sénégal ci benn angle Macky Sall du benn secteur bu mu baax ci Sénégal benn secteur benn amul benn secteur lépp mooy signé rek di jox tubaab bi mooy lu ñëw rek mu signé jox tubaab bi suuf seeg euh, pétrole beeg lépp Idrissa Seck moo gën a bon Macky Sall gis nga li ñuy dund nii ak Macky nii. Hmm. ak fi ñu toll ci ndóol ak coono ak fitna ak jël Sénégal tekku ci loxo multinationale ak tubaab yi ah Idrissa Seck bu faloon mooy gën a pur Macky Sall te loolu dama ko yàgg wax gars yi dal sama kaw te chaque jour l'histoire me donne raison loolu laa mun a expliquer bu nee na xaw ma day jàppale xaw ma kan da koy jàppale ci xëy na sax gouvernance lay gën a bon. Macky Sall ku suk tuut sax xëy na boo xamoon xawoon na ko jéem a defar sax xëy na amaana du ko sax defarati. ce qui veut dire que amoo yaakaar ci gouvernement bi ak. ban euh, gouvernement am yaakaar yow Sénégal daa am gouvernement fii ay dealer ñoo fi nekk ay tekkatu dil ay sàcc ay workat ñuy pàccoo àllu réew mi jaay géej gi jaay suuf si sàcc littoral yi jël semence yi jox ko yenn sëriñu nante yi armée bi tëdd ci suufu jàmbur yi ñun xam ci xam ci lan la nekk ndumbelaan au fait. jën lañ nekk géej ku mën sa morom warax fi looloo fi nekk de fii amu fi fii gouvernement amu fi ay nit yu paacoo ñoo fi nekk am seen i problème am problème mu euh, ak ay prêt bancaire yoo xam ne amoon nañ ko war a fay ay dette yaa ngi ci politique ci état bi paacoo ñoo jox seen wàll ñuy xool ñi lekkoon nañ ñañ dem ñeneen ñëw lekkaat loolu moo am Sénégal loolu moo fi am. Euh, lu jiitu loolu ñu ngi doon laam-laamee ci lu yàggul dara nii euh, kii di Idrissa Seck ak Ousmane Sonko kan moo ci war a nekk en tout cas chef de l'opposition mu juróon polémique ndax jamono ji dafay wane ni euh, taxawaay bi nga xamee ni moom la Ousmane Sonko war a taxaw daf ko gën a renforcer pour gën a jege askan wi wala da gis ni politiquement parlant il faudrait que ñu jéem a xeexaat pour mën a am opposition boo xam ne moom la Sénégal di jox confiance wala yéen waa nitu dëgg de manière générale da ngeen gis ni Ousmane Sonko leader la pour c'est-à-dire xam nga chef de l'opposition chef de moo kan moo créé certainement les hommes politiques. Macky Sall la. absolument moo créé yooyu. c'est-à-dire ñun Sénégal yi war nañu doyadi doyadi bu toll Macky Sall toog fa mu toog ci pala bon léegi yéen créé leen kenn ku leen jiite quoi après comme ça lépp mën a meebu ci kenn pour mën ko doxal chef de l'opposition mooy lan parce que comprendre na ni moom xam na ni ñi ko séexal noonu lañ mel ko c'est des Idriss Seck ay nit yoo xamante ni ñoom pouvoir rek moo lay intéressé ak lu ñu dundee alors comme loolu am na ah ils sont xam nga di di il est obligé muy créer benn affaire boo xam day tax ñoom ñu nekk ci di xëccoo mais chef de l'opposition loolu ay waxi du waxi nit sax amul benn njëriñ actuellement li ñuy wax fi ñuy tag affaire yi mooy Sénégalais yi xam xàmmee nañ li ñu leen doon wax bu fekkee ni seen bopp mu ngi fi ñu xool comme mooy homme politique idéal bi nga xamante ni xam nañ ni kii comme li ma wax sànq il est jeune bokk ci benn lobby dëggu na loxoom taqul dara tiim na kees gi alalu contribuable bi xaalisul fi mu doon liggéey alal bu bëri boo xamante ni mu lekk ko am lu muy séexlu am diine loolu la ñu wax Sénégalais ñu tànn leen koo xamante ni musul takk fenn fenn ci politique yoonam nekkul ci alal bu lewul parce que ay entreprise fois yoon wane na ko mënoon nekk milliardaire même mu éviter loolu ndax ragal alal bu lewul ñu fal nit ndax ay valeur ñu fal nit ndax dignité ñu fal nit ndax ngoram ñu fal nit ndax ay jikkoom ak ay doxalinam ñu bañ a fal nit parce que dafa may xaalis parce que daf may jox parce que dafa def lii que bu ma gisee sénégalais am si ñoo xam ISEC da leen bett laa xam ne ñun suñu liggéey des na lu bari ah. Abdou Karim conseil économique euh, social et environnemental bi nga xam ne moom la Idrissa Seck. Mhm. Euh, jiite jamono ji nga xam ne Mimi Touré moom moo ko jiite woon da nga gis ni euh, njëriñ la wala idée bi ñëpp daan am ci lu yàggul dara mooy ni luñ fi waroon a jëli la ba moom a Seck sax yëkkati woon na ay kaddu xam le ni jëriñul dara alors kaddu yooyu ban jàngat nga koy jàngatee bu demee ba moom mi doon yëkkati kaddu yooyu tey mu jiite conseil économique social et environnemental. mooy c'est-à-dire man dama bëgg di xuus ci ci biir quoi parce que ay conseil économique et social cest à ay postes yoo xamante ni genre sedd la rek la quoi pàccoo pour nga lekk sa wërsëg maanaam kaay ñam ci kii bi ci pàccoo bi rek la quoi te loolu ah moom moo ko doon wax daanaka loolu day gën a dëggal rek ñun ci li ñu nekk di wax à chaque fois xëy ñun ak ñoom li ñu wuteel ak ñoom mooy ñoom bu ñu ci pouvoir dañuy xajamal ñeneen ci pouvoir bi pour toog ci pouvoir ni lool ci ngay gëm lool ci finance ñëpp wax nañ ko ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko depuis des années mi mu doon ut am na ko mooy lu mu suturloo lay ut ak lu mu dundalee njabootam moo taxoon muy xeex am na ko pare na si donc du ay poste wala du ay ay yoo xamante nii dañ ko war a xeex wala loo xam ni instant yi nii ay fonds politique dina wax ay 7 milliards ak la gars expliqué yooyu yëpp dañ ko ci expliqué quoi yoo xam ne par rapport ci poste yi lay lay jógee donc c'est-à-dire yooyu laa wax quoi dañ nekk ay nit yoo xam dañu ñëw di paacoo Sénégal foofu laa lay delloo si te loolu ñoom ñëpp la fi ñu toll ni képp koo xamante ni yow amaana Macky Sall gis na ni yow da nga da da nga mën nga ko jëriñ ci may ko jàmmam dina la fexe dina la fexe ñam compal nga ñam bu xamee ne yow da ngay bëgg da nga bëgg dund loolu dundee ngay jooy <laughs> ak moo tax ngay wax ñi fi des ah le temps nous donne raison l'histoire nous le temps est meilleur juge alors euh, doxalin yu demee nii ban gis-gis nga jàpp ni moom la ci askan wi war am rawatina yéen ñi nga xamee ni yéen a yor kàddu askan wi ci situation yu demee nii lu ñuy toog la rek dem dans les média certes pour métit lu ko wala am na beneen taxawaay boo xam ni xëy na askan wi war nañ ko mën a amee ba nga xamee ni xëy na yenn jëfi yi franchement dina ma méngoo ak respect boo xam ni euh, ñi jiite réew mi de manière générale dinañ ko gis si ñoo non boobu Sénégal bi ñoo war a jóg lijjanti calendrier républicain bi parce que ñii dañuy yab quoi et puis foowee sénégalais ñu lijjanti fichier électoral bi waxuma lay opposition de. Hmm. peuple sénégalais bi ñoo war a jóg la peuple sénégalais ñoo war a jóg exiger Macky Sall mu wax calendrier républicain kañ la élection locale yi kañ la élection législative présidentielle kañ la parce que loolu mooy calendrier au fait. absolument ñu xam lan la quoi ñu xam au fait nan kañ la ñuy voté nan lay demee fichier électoral bi ñu changé ko defaraat lu tegaat ko ci yoon. lu ndaw lu pouvoir bi def. Hmm. peuple bi wàcc ci mbedd bi pacifiquement naqarlu ko. waxuma la ay dem RTS dem place de l'Obélisque 15h 17h nga dem euh, euh, euh, RTS après ku nekk ñibbi waxuma loolu de. Hmm. maanaam bu ñu amee dara lu ñu naqari ñu taxaw fekk fajuwul ñu jug fi ñu taxaw ci angle yëpp nag fexe que dëkk bi amul ndox amul courant jàng bi doxul mbay mi baaxul santé bi doxul dëkk bi dara doxul te Macky Sall nee na yaay mi ngi ci deuxième mandat am. tu vois ce que je veux dire. Hmm. te ñoom pourtant ñi ngi ci ay conditions yoo xamante ni kenn mënu la ko wax. donc loolu moo tax léegi man dama jàpp ne nag jot na ñoom jeunes jeunes yi maanaam le peuple sénégalais ñu conscient xam ne fi toll nii ñoom mm-hmm. bu ñu jugalee réew mi fi mu jëm ak ñoom musiba naaru la absolument xam naa ngir mm-hmm. ngir ñu génn ci point boobu sax fi ñuy daaxalee rek mooy euh, ñenn ci analyste politique yi nga xamee ne yëkkati nañ ay kàddu gis ni certainement président Macky Sall li mu nam mooy euh, wutal place ki nga xam ne mooy Idrissa Seck boobu fi jugee moom mun ko wutu ci ndax analyse boobu da nga wala da nga gis ni lu mënul nekk la ci constitution. bon loolu man loolu man yooyu mënu ma si développé xam nga man li ma gëm daal mooy Macky Sall dafa bëgg troisième mandat. te mi ngi éliminé képp koo xam ne opposé wu contre moom. li mu gëm quoi man loolu laa gëm ta du ko am incha allahu rab bu ñu yàlla may fekk tal ñun ñu ngi fi incha allah te du ko am. man loolu laa gëm ah pour man ci programme boobu la nekk ni pour programme troisième mandat boobu la nekk. alors mhm. Abdoul Karim ñu fàttali ni ci lu yàggul dara euh, yoon tegoon na la loxo euh, mhm. ci jëf xam ne xëy na dafa méngoo ak islamophobie bi nga xamee ni jamono jële moo juróon coow mbiru Emmanuel Macron ak yi nga xam ne yëkkati woon na ko ba ñu baree bari ci jullit ñi ko nga jëloon drapeau France taaloon ko ba loolu sababoon yoon euh, teg la loxo ci lu tënk rek mën nga ci parcours boobu ak sa jëflanteeg yoon ci jëf jooju lan moo waral xëy na bi nga demee yoon lan nga fa jógee ci gàttal waaw mais xam nga loolu je pense que bon biti la fanaan bi àdduna bi yëpp yëg nañ ni li nga xam xam ni français yi def nañ ko xam nga président Macron wax na ko si liberté d'expression française constitution française bi nga xamante mooy may nee ñu def mhm. blasphème la ñuy wax sang bi suñu sang bu tedd bi xam nga si na salaa salaam bon ñu taxaw euh, Samuel Paty professeur la boo xam ne ab jàngalekat la bu dem ay xale yu ndaw yu muy jàngal mu wan benn photo boo xam benn waaju futeeku la ne leen kii mooy sang bi subhanallah mhm. alors loolu naqari ko bon ci li ñu wax ñun dara wóoruñu ndax jeune musulman la dara leeruñu si. Mhm. mais bon ñoom def nañ li ñuy def rek wax seen i créer seen affaire boobu la ñuy créer seen problème di wax di sos rek di ko jubbu jullit yi. léegi nag bi Macron génne président français bi ne France du mës a renoncé ci caricature liberté d'expression l'affaire yooyu alors loolu ça nous a très mal àdduna bi yëpp di ko manifester tous les musulmans ñi ngi manifester di am naqarlu li nga xam ñu ngi koy teg suñu sang bu tedd bi. alors Sénégal nag ñun malheureusement donc comme Charlie la ñun duñu Charlie te ñun nous sommes le peuple te nous sommes des sénégalais ay musulmans. Mm. alors on fait le tamit ne français yi du ñu yab def suñu acte wala def de Macron et contre cette blasphème là nga xam ni ñu ko bëgg yaakaar àdduna ak mm. moo tax ñu lakk drapeau bi bu ñu lakkee drapeau na ñu jàpp ñu yóbbu bu ñu yóbbee laaj nañu xam ngeen drapeau dafa sacré dafa mais li leen wax leer na ne leen amul lu gën a sacré Seydina Ahmed amul àdduna ak li ci biiram ak lu nit ñi yaakaar ci àdduna ak loo yaakaar ak loo yaakaarul sax ñun seen ma xam muñ ko gën donc kon bu ko nit bu ko bu ko nit di caricaturer wala mu koy jëm a sàggane wala mu koy fooy wala mu koy jëm a négliger ñun dañuy taxaw wax la ni la ñun dañuy wane suñu mécontentement par rapport à ça manifester taxaw mmh. te loolu sax tax na ba samedi bii di ñëw incha allah le 7 bii nii ci samedi bi ñu ngi Obélisque place de la place de nation ñu ngi fa pacifiquement ñu woo jullit yëpp ñu ñëw daje fa 10 ci suba naqarlu loolu nga xamante ni français yi ñu ngi koy def en dehors taxawaay bi nga xamee ni am ngeen ko aussi beneen pouvoir spirituel bi nekk fi ah am fi doole euh, du lu bees quand même dans les pays occidentaux quand même ñuy accuser jullit ñi wala di yëkkati ay kàddu yoo xam ne dafa leen di métti alors pouvoir spirituel bi da nga gis ni euh, taxawaay bu ñu sañu la taxaw la en tout cas envers xëy na ci état yi nga xam ne xëy na ñu ngi jëflante ak jullit ñi wala da gis ni euh, amuñu liberté pour taxaw en tout cas ci statut bi nga xam ne moom la ñu am ci défendre diine bi bariwul ñu ci ñoom ñoo xam ne xew-xew bu amee dinañ yëkkati kàddu ak tamit est-ce ñu ngi lëngook yéen ci doxalin yi nga xam ne xëy na yéen a waaw xam man damay expliquer souvent bu gars yi bu ñu naan pouvoir spirituel ma leen cest à man ah man de Abdou Karim maa ngi ma àndal dañoo nangu ni kenn ëppale wuñ ci Serigne Touba loolu lu ma gëm la damaa gëm ni ñun dañoo doon Serigne Touba Serigne Touba nag mhm. dafa bind bàyyi fi bu doon njabootam rek rek yi mu jur ci deretam kon du bind Serigne ñun ñëpp la njabootee Baye dafa bind bàyyi fi man damaa gëm maa bokk ci ñu doonu Baay Ñas man damaa gëm damaa bokk ci njabootu Baay Ñas Alaaji Malick li chose Limaamu Laay même chose man damaa gëm ni sëriñ si ñun ñooy seen ndono man li may def nii sëriñ si ñoo may fit bi quoi ndax ñoom laa jàng seen i xasida jàng seen i histoire gis seen i doxalin ba Baay Ñas naan sëriñ Cheikh Al Maktoum ndaw la xale la nañ ko dooleel mu dugg ci assemblée bi représenté fa l'islam boobu ñun fu ñu nekkoon loolu boo ko jàngee ci histoire day tax man ma am fitu taxaw ne damay xeexal Sénégal c'est-à-dire loolu mooy doon ñi quoi léegi lan moo ñu war a xaar ne ah Serigne Touba waa Touba rek ñoo ko moom wala xalif Mouride rek moom moom Serigne Touba déedéet. Mhm. Serigne Touba maanaam Serigne Touba Sénégal yëpp senegal représenté Sénégal ñëpp dañoo doon Serigne Touba léegi deret bi ñu doon ci xaadim Serigne Touba xaadim Rasul lan la ñun deret bi ñu doon ci Baye Niass lan la man damaa gëm ni man Abdou Karim man damaa doon mag ñi ñi ci li ma gis may def yëpp mooy li ma doon ci mag ñi la te ba may def bëli man xam naa ay mbàkke mbàkke yu bëri sëriñ ñaseen yu bëri man fa laa bokk xam naa leen bëri bëri xam naa waa Tiwaawan yu bëri mais musuma def affaire acte l'islam di dox benn doxal ba benn sëriñ woo ma ne ma Abdou Karim Baye li ngay def dañ may encouragé au contraire c'est-à-dire man ñoom mënuñoo mën seen kanam mën ndax yow borom kër gi boo juree sa njaboot mu dem ba mat kilifa di sol sa daalu bàyyi mu jot la mais da a dox na muy doxee léegi bi li nga mën a xeex yow ndaw moom mënu ko xeex mais ñooy cal cal amin yàlla na ko yàlla yërëm defa ñu defa nañu li ngeen def ne ñun buñ ko ñun ñoo ko waroon def mais comme ñun ay mag ngeen te yéen yéen ndaw ñun ngeen fi nekkal ñun ngeen koy defal mi ñëw ci sëñ Sidi Matar yàlla yàlla yërëm loolu la wax même te man dem naa boo toog jàkkaarloo ñoom wallahi lazim mm-hmm. donc pour man mm-hmm. man du xaar ay ndigalu sëriñ bi sëriñ bi jox nañu ndigal ba pare mënul lu ñëw nga taal oto da nga ni a yombal seen euh, seen li nga xam ne mooy seen doxalin bu fekkoon ni xëy na méngoo maanaam euh, dëppoo am na seen diggante ba nga xam ne manifestation yi ngeen di woote de manière générale surtout lu jëm ci diine ñoom ñu encouragé leen ci taxawu leen aussi foo xam ni xëy na état bi euh, mënu leen fa taxaw ndax position bi nga xam ne moom la yor aussi en ah. taxaw laa taxaw laa saa taxaw mooy ñoom ñu yëg bu ñu yëgee ñu def ñun li ñuy def mooy yëgal leen léegi nag ku ne xam nga ni foo dem kër goo dem am na sàmba wala fi li naan sàmba sàmba mooy koo xam du dem du dikk yàqkat lay doon intérêt moo fay nekk mu ne ci bunt bi di dil di def ay dil kër goo dem am na mel noonu maanaam kër goo am na mbalit kër goo dem am na mbalit boo demee Touba am na mbalit nga dem Tivaouane am na mbalit nga dem ci jàngo bi am na mbalit foo dem am na waajoo xam ni état la fay nekkal ak di luxuma ko mbuxum ut lu mu dundee ñooñ ñooy baare lu bare bari ci yëf yi dañuy mel ni yëf yi te doonuñu ko bari na mais terewul ñun ñu ngi def suñu kéemtulaay kàttan ba sëriñ si di jot ci message bi ba pare dañu ñaanal dañu encouragé man sama loxo ñaata mbàkke mbàkke ñaata siwén ñaata ñaseen ay kilifa ñoo may woo di di di ñu ñaanal ci liggéey bi di la encouragé di la conseillé donc kon bu ñoom bu loonte ñoom ñun dañu am sañ-sañ bii sax comprendre nga léegi nag am sàmba du tax man may xalab sëriñ bi ndax dégg nga baax fa lay waxee mm-hmm. état du Sénégal kër am na ko représenté koo xamante ne ab naafiq la këru diine boo dem am na ko fa représenté état du Sénégal koo xam ne ab naaféq la ñooñ nag ñooy baare liggéey bi yëpp ñooy baare liggéey bi di mel ni kuy def di sëriñ bi kii di taaral affaire yi di kii di def yu kenn xam mais ñun teral dañuy xam ñooñu mën leen contourner dañ leen contourner bokk na si ñi ñii ñuy doxale ñu Abdoul Karim Gueye Karim Xurum Xax mbégte la woon quand même ci rédaction Senbuzz tey ñu dalal la di la jégaluwaat bu baax a baax ci disponibilité beeg waxtaan wi nga xamee ni xëy na am nga ko ak ñun di la jaajëfal aussi. maa ngi lay remercier bu baax mm-hmm. nga xam ñu ngi doon ñaan ñaan yaakaar ni rek euh, que wax ji dina euh, wax ji am na solo te lu fi baax rek ñoo xam ni yàlla la subhanahu wa taala lu bon ñoo xam ne si man la rek man sama doyee dégg sama tëñax tëñax mais juste rek pour ñu ànd ñun ñëpp xeexal Sénégal ànd ñun ñëpp jëriñoo suñu réew bañ fee nekk di daw di ko fi bàyyi jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam ala rasulullah Abdoul Karim Gueye la woon ak rédaction Senbuzz di ko ñaanal yàlla di ko gërëm Abdoul Aziz euh, Ali Ndiaye ak Jador huile Jador ak li nga xam ne mooy macaroni Jador ak vermicelle Jador ñoom ñoo ñuy accompagné di leen jox dig daje ci la dara beneen jotaay fi amaanillah ndax ma dara dara ndax xaw ma. sa mi ngi ñëw. sa door a ngi ñëw. moom mi ngi mi ngi ñëw. sa door a ngi ñëw. moom mi ngi nan la war a nan la war moom dafay nooy. ci neex. nag li yomb Chronique à demain.